mbokk yi asalaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu baax di leen jaar di leen ndokkeel mbokk yi ci weer wu sell wii mbokk yi xam naa ne bu ngeen gisee camion bii de seen xel yëpp day dem ci commission sociale bu Touba ca kanam ci njiital Serigne Mourtala moom Serigne Abdoul Fattah ak jàmbaar yi nga xam ne ñoom lay àndal guddi ak bëccëg ngir lan jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi mbokk yi Serigne Mountakha Mbacké xalif général des mourides na fi yàgg lool te ànd ak mat na ko de mbokk yi moo jiite ñëpp daq jaamu yàlla ñëpp nag gën a social ñëpp firnde laa ngi niit ndax kat saa bu commission sociale bu Touba ca kanam jógee bu ñu geestoo gis sëñ Muntaxa moo xam ay basang yu ñuy jox daara yi moo xam ay ndimbal yu jëm ci askan bi nawoon fa woon delloowaat na buum ca booy booy ga yëkkati na lu tolli ci fukki tonu ceeb di ñaari téeméeri saaku ceeb yu cinquante kilos xam ngeen ne lii de mën naa yegg ci ñaari téeméeri borom kër mbokk yi kon yitte kese la sëriñ Muntaxa de jar naa roy sëriñ Muntaxa de jar naa toppadoo ci lépp nag rawatina ci sociale kon jërë jëfati sëriñ Muntaxa ñu di ko ñaanal mu yàgg fi lool ci ànd ak wér waaye it di fàttali mbokk yi ay ca mburit bu kenn xeeb bu kenn yem commission sociale bu Touba ca kanam ñaar fukki fan ak ñett ci weer wi ñu nekk di weeru mars incha allah di samedi bi njëkk ci weeru koor ba ca topp ca la ñuy dajale xéwal yëpp nag fas yéene ko yóbbu ci bokk taalib yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi te itteewu ku leen jàppale mbokk yi na ci ñëpp tàbbal seen loxo yoon waa ngi nii lu ngeen ci dugal dana yegg si ci Touba ca kanam kenn ku ci nekk nag xam nga sa digganteeg sëriñ bi xam nga sa digganteeg yàlla kenn ku ci nekk yaa ngi denc dépense weeru koor yëpp wala dépense waat di tànn li ngay dogoo waaye bàyyil xel kii nga xam ne balaa moo dana gàddu siwam fu ne ma dugg fa bokk yi kon ay ca murit bu kenn xeeb bu kenn yéem jërëjëfati Serigne Touba.